dañoo toll ci jamono joo xam ne ji ku sàmmul sa bopp ku sàmmul sa bopp ñàkk yàlla dafa ñàkk sëriñ ndax li nga xam ne moonu wër lépp li ci ëpp lu ñuy tàggale suñu pas-pas ak suñu yitte ak suñu ngëm la kon nag nañu lu ñun ñëpp bu baax te xam ne sëriñ bi moom lépp lu nit soxla aduna ak alakhira liggeel nako yàlla ba am ko seigne sey ngi wax sank beuyit wo xamne dama am beuyit bu ko nit jihad yantaha wa tajri rabih wa li la yakhsid kalbun nabih xam nga wax nga bu mel non wa ben la xam nga seigne touba lutax lum wax waxat ko temir yoon xam ngeen lutax léeg-léeg da ngeen di defe ne day répété fekk day bañ ñu defe ne la daloon nitu yàlla ya da ko dal dañuy xaalu wax loo xam ne bu xaal bi reese ñu ne waxuma ko woon loolu lay bañ de moo tax léeg-léeg nga gis bëyit yoo xam ne benn baat moo leen di wuutale te baat ba boobu ñoo bokk maanaa masalan bu ne wa tawbatan xubilat ma miknatin rufiat ma zawjatin saluhat bi diini yàlla newaat wa tawbatan xubilat maa mignatin rufiat maa xaalatin salohat bi diini yàlla loolu da koy def lu bari moo tax bayit yi ma wax ak yi wax benn la waaye def ne jihaadiyan taha na murit yëpp déglu li may wax nañu moytandiku réseaux sociaux ab murit warta ñàkk fulla ba ku wax mu ne moom lay waxal ab murid da wara ne ci bopam tal bopam tal sëriñ bi ba du tal keneen ñu waxante deug señ Cheikh Fall Baye Góor sama sëriñ neena ken ma kenn munul ko wax nga ne man lay wax lolu ak ndax ko wax da ngay seet ndax yow lay waxal bu waxe yow nga jëfëndiko su waxul ak yow nga bayyi ko ña waxal jihaad dafa mel dana yeen murid yeen la waxal sama jihaat jeex na man lu mu doon liggéeyal yàlla mat hmm. jihaad yéen taxa léegi nag ma leen di yëgal yéen murid yi ne wa tajëri rabihu li ma jaay yàlla yépp jaayante naa ko moom ba denc sama bénéfice maa ko moom bisimilah loolu booba la woon waaye ndekete gis ne lii di ñëw borom làmmiñu rëy yi borom làmmiñu dang yi ñi nga xam ne jëfaluñ yàlla dara te lu waay wax ñu wedd xamoon na ni ñu ngi ñëw mu ne waliya laa yaxsadu kalbu naabi xaj yi ñëw sama ginnaaw di baw nag duñ ma jóg baw rek la ñu liggéey dégg ngeen wax kalbun la wax de nga xam ne ñooñu dara ja taxawaayu xaj la ñu am ci yàlla ndax xaj mënta weesu li sëriñ tubaa daj ci diine benn jullit ñemee taxaw di teg ci moom kàddu bu ak xaje rek la nañu waxante dëgg saagaw ñu nag bu kenn defe ne dana ñëw di aalu di saaga sëñ bi moo ne kalbun naa bi fu ma waxaat bu kenn jóge fi naan sëñ sëñ njagal la mu wax keroog sëñ bi moo ne wala ya laa yax sudu kalbun naa bi xaw léegi yéen ñi dégg tubaab nu ko tubaab waxe le chien waaye wax lañ ko ci kaw le chien aboie la caravane loolu la sëñ tënk foofu kon buñ amati soxla ci werante ak kuy wax ku ànd ak koo xamante ni kii denc na bénéfice jihaat na ba jihaatam jeex mu ne xaj yi baw duñ ma jublu ku ne xam nañ ne waxul xaj yi ci mbedd bi bawukaay yi gisoon na ko sëñ Tuubaa ba muy gis ñoom ñi seeni maam juddu ñu gisoon na ko moo tax Cheikh Ibrahima Fall noonu na Babul Mouridina mag sëñ Bamba aj nañu yoon wi foo xam ne am na ñu ñëw ci ginnaaw sëñ Cheikh Mbawar moom a ko wax na am na ñu ñëw ci ginnaaw yor seeni xeer di sànni waaye aj nañ ko foo xam ne aw saam du fa àddu sëñ Cheikh Mbawar ne ma waaye nag xeer wu diis nga sànni ko te jógoo fi nga taxaw te àggul fa mu jëm bu la fa fekkee du baax kon nañu noppalu ci wet googu sëriñ bi tamit darajati bilantihain yarfau wallahu lii bilantihain yanfau léegi ñaar yooyu bu ci suñu yoon nekkati te ñun ci lañu nekk di wax